seen xibaaru mbokk yi tey la alxamis ñeenti fan ci weeru diggu gàmmu atum junneek ñeenti ñeent fukk ak ñeent alxamis benn panub septembre atum ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a dañu koy doore kàdduy njiital forum civil di biraayim Seck moom nag nee na li ku jégi bëgg te mooy taxawal ay kuréel yu bari foofee ca ngombulaan ga maanaam ay groupe parlementaire yu bari loole bu ñu ko defee day safaanook seen bëgg-bëgg te mooy wàññi ferey ngombulaan ga ndax daal lu kuréel ya gën a bari foofee ca ngombulaan ga fere ya di gën a yokku ba tax na nag Birahim Seck di artu kujje gi ci ñu bàyyi seen xel ca loola Eh, ginnaaw xibaar yu ñu yëkkati woon eh, di wax naan eh, wéef day dagg yenn sàq yi maanaam day couper yenn compte yi ak naan nag wéef day tëj ci Sénégal waa wéef weddi nañu ko ba mu set ci benn saabal bu ñu siiwal wéef nag di wax ni daal xibaar yooyu ñu yëkkati dara du ci dëgg waa wéef nag di wéy di dalal xelu jëfandikukat yi ne daal mboolem lu ñu daan def ci wéef mën nañu wéy di ko def nañu ko daan defee wéef nag di daaneel ci ne daal dàqul nag yóbbu ci yoon képp kuy jibalati xibaar bu ñu mel ak képp ku koy jàppale ci tasaare ko nu dem ca bi Mbambilor foofe nag askan wa fa yeewoo ndox yi taw yaa leen sonnal lool rawatina nag koñ ba ñu naan gorom de askan wi daal nee na ñu ñenn ña sax nag faf nañu génn seeni kër te nag jumtukaay ba ñu yoroon sax di ko mange ndox ma farab gox ba faf na ko nangu bu nu sukkandikoo nag ca bëkk néegub faraba nee na loole ñuy wax demewu ñi jumtukaay boobee nag ñu doon mange ndox ma ab jàmbura ko moomoon di ab privé moo ko fa yóbboon te moo ko jëli waat mbootaay gi ëmb liggéeykat yi seen oo ginnaaw nag selenlu ko ñaari fan yu ñu amal mujj nañ ko dakkal nee na nag dinañu amal doxub ñaxtu niki ajjuma ji di ñëw foofe ca bayaalub askan wa di place de la nation nee na nee nañu nag ñu nga cay woo askan wi ñëpp carte de presse nationale yi ñu waroon a door tey ji saabalkat yépp di ko jëfandikoo kuréel gi ñu dénk nag euh, wàll wi yokk na app bi ba benn panub décembre li ko waral nag mooy nee nañu daal euh, danoo jot ci càkkutéef yu bari yu bawoo ci saabalkat yi ba tax na daal ñu yokk app bi ngir mën a saytu càkkutéef yooyu yépp Euh, mbokk yi dañuy daaneele ak tàggat yaram euh, ñu wax ci raw gàddu ko France foofee nag doon nañu amal seeni juróomeelu bëccëg ni ki démb euh, Montpellier moo daan Ajaccio ñaar ci dara Lyon moo daan Auxerre ñaar ci benn Strasbourg moom waaw Strasbourg ak nant kon ñoom ñooñee dañoo témboo benn nag benn Lille moom dafa daanu ci kanamu nis ñaar ci benn Olympique Marseille moom moo am ndam ci kaw Palermo benn ci dara Lens moom itam dafa daan Lorient juróomi ball ci ñaar Paris moom itam dafa am ndam ci kaw euh, waaw Paris moo am ndam ci kaw Toulouse ñett ci dara ren moom it moo daan Stade Brestois ñett ci benn Euh, mbokk yi ñu woy ca raw gàdduk Angleterre foofee ñoom it wéyal nañ euh, juróomeelu bëccëg bi foofee nag Bournemouth ak Wolverhampton ñoo doon janoo waaye daal dañoo mujj témboo dara ak dara wala dara ci dara Arsenal moom moo daan Aston Villa ñaar ci benn Manchester City moom it dafa daan daan yu metti Nottingham Forest di barok Cheikhou Kouyaté Cheikhou Kouyaté sax ma nga woon ca jongante ba waaye daal dañoo daanu ci kanamu nag Manchester City juróom benni ball ci dara West Ham ak Tottenham moom dañoo témboo euh, benn benn Liverpool bu mo bu euh, waaw Liverpool bu Mohamed Salah moom dafa daan euh, Newcastle ñaar ci benn Newcastle nag moo njëkkoon a dugal waaye daal Liverpool daa mujj rek dëpp mbir ya daan ko ñaar ci benn. Oh, mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaari bis bi ma amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndem soob yàlla.